Uras Info Ribari Gao Tewor. Uras Info l'info à temps réel Uras Info jàngat du notre force le traitement de l'info mbokku téléspectateurs yi ñu ngi fii ci buntu kër xalifa saahibul faydatu tijaniya cheikh mahamadul mahi ibrahima Niass di xaar président Ahmed Youssouf Bengelloune njiital mouvement Kaolack nouvelle vision jiite coalition bu am doole bi la ñuy wax avec alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes liggéeykat yi président Ahmed Youssouf Bengelloune fas yéene samp ndëndëm laaj mairie Kaolack bi jaaree ko fii ci buntu xalifa saahibul faydatu tijaniya cheikh mahamadul mahi ibrahima Niass ñu bàyyi leen ak délégation bi yéen a ngi ànd ak seen convention média de la fayda alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla bu baax di am mbégte ak kontaante teew fii nii ci kanamu Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu al xalifa Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass sëriñ bi sa doom moo fi ñëw sa taalibe moo fi ñëw sa sët moo fi ñëw mi Youssouf Ahmed Ben Jalloun ñu ñëw fi nag en tant que taalibe ñëw fi en tant que doomi dëkk bi pour bëgg a defar dëkk bi pour am ay programme ak ay yéene ci dëkk bi pour defar ko ñu ne nag programme boobu noonu dinañ ñëw fi présenter la ko pour nga xam ko ñun nag dañoo créer mouvement Kaolack nouvelle vision mi Kaolack ci xar xanam bu bees ak ci gisin bu bees ndax ku nek gis na jambat li nga xamne ni mo nek nekk ci Kaolack depuis indépendance ba légui ñu nek ay xalé gis ko mu metti ñi ñu nek kat buñ maggé ciono <coughs> bobu non am nañ ci responsabilité responsabilité bi moy lan moy ñu bok ci ñi défar motax ñu juk jël suñu responsabilité ne dañoo fasiyéné put pour Nah ndax nit bu fekké ne da nga am lu lay nga toog di kaas dafa fas yéene woo jël benn initiative pour loolu changer ci naqar rek ngay dëkk moo tax nag ñu ne ñun ñi nga xam ne nii ñooy ay ndaw am benn xalaat ne danañ changer indi suñ programme pour wan la ko wan la ko nga xool bu fekkee gis nga ci loo xam ne nii lu ñu war a changer la nga wax ñi ñu jubbanti bu fekkee ne gis nga lu ñu war a yokk la nga wax ñi ñu jubbanti ndax yow liñ àndeek yow àndee woon ko sa baay mooy mu wax ñi rek ñu def kàddu yi sax mënoon na bañ a ñàkk mënoon na ñëw ñëw sax nga wax ñi rek ñu dégg rek topp waaye dafa rafet boo ñëwee ci nit nii laaj dara nga ne ko kat lii nii ma bëgg laaj fii laa ci bëgg a jëm ak fii laa ko bëgg a yóbbu moo tax ñu ñëw ànd ak suñu mbooloo si ndaw amuñ xaalis waaye am nañ gis-gis am nañ programme te yaakaar nañ ne programme boobu ñu am moo gën ci Kaolack ndax politique Kaolack ni daan demee ñun ñëpp gis nañ ko politique boobu nag lañ bëgg mu changer bëgg nañ dëkk bi changer xarxanam ci politique changer xarxanam ci santé changer xarxanam ci économie changer xarxanam ci lépp moo tax ñu toog tëju xalaat du loo xam ne nii dañoo toog rek jug ne dañ koy def wala nit ñi dañoo jug di laaj ñuy laaj loo xam ne luñ programme la ay at waxtaan ci xalaat ci toog soo ko génnee pour mën a taxaw ne ñun dañuy laaj luñ bëggoon a wax bëri na waaye xajut fii waaye daal liñ lay wax sa taalibee fi ñëw sa dooma fi ñëw sa soppee fi ñëw te ku bëgg a defar dëkk bi moo fi ñëw salaamaaleykum. Euh, xam nga tey àjjuma la dafa xat. vraiment te sëriñ bi xadara léegi mu jot. sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar. voilà man la le Lo coordinateur mouvement Kaolack Nouvelle Vision bi président Ahmed Youssouf Bengelloum jiitu euh, donc euh, ñoo ñëwoon là. seet la ànd ak moom euh, ñëw nañu tay and ak mom pour ziaré si la mais wax la liñ nek biñu tambalé yëngatu bi yàgg na mais biñu tambalé rek dama ko waxoon nañ dem séti suñ sëriñ wax ko ci liñ nekk moom mu ne ma euh, coordonnateur dafa am lu ma bëgg kooku mooy suñ kilifa dama bëgg avant may dem ci moom su ma ñëwee ma indil ko loo xam ne lu concret la ma ne ko lu concret mooy lan mu ne ma dëggal sama candidature ci mairie Kaolack avant may toog ak moom ma ne ko loolu nangul naa la ko effectivement dëggal na ko tey jii ci ñi nekk ci landerneau politique gu Kaolack bi yëpp di wax moom mooy premier candidat confirmé ndax versé na caution au niveau de la caisse de dépôt et de consignation pour deux candidature Lini, lii nii la waxone du fi ñew mukk te dëggalul loolu nonu muy wax nekul ay candidat déclaré versé 15 millions pour wax ne candidat la ne bim bi amé mu am coïncidence heureuse bu ci am gannaaw coïncidence heureuse bi moy gannaaw loolu nga wo njaboot gi jàngkat yi tubaab yi kër gan ñun boobu ñu ngi ci terrain bi di def ay proximité fekkewuñu woon jotaay mais après Kossy TV lañ ko dégloo biñ ko dégloo Kossy TV ñu partagé ko mu ne ma coordonnateur mu naa mu ne ma amaan nañ beneen ndollal ma ne ko ban la mu ne ma euh, euh, wala ñaar ma ne ko ban mu ne ma benn bu njëkk bi damaa sant yàlla bi ma dégloo sëriñ bi mu wax ba pare ndax taalibe bu fekkee da ngaa jiitu di jëf te la ngay jëf méngoo ak sa xaatiru sëriñ loolu sant yàlla la mu ne ma bi sëriñ bi ma dégloo sëriñ bi loolu laa njëkk a sante yàlla ñaareel bi mu ne ma ñun am nañ ndam te demaguñ ma ne ko ah ndam li lan la élection yi ñëwagul di mu ne ma élection yi bu ñëwagul ñun suñ sëriñ bëgg-bëggam moo nekkoon ñun ñu dëggal ne candidat lañ te loolu ci taalibe Baay ñun ñoo ko njëkk def loolu moom keneen mënatu mënatuñu cee jiitu. Mm-hmm. wa waaw. <laughs> keneen mënut ñu cee jiitu loolu moom <laughs> ndam loolu moom jël nañ ko keneen mu ñu moo ma wax loolu bi ma ko waxee ma ne ko euh, loolu moom kenn mënu ko dindi lu yàlla def la yal na ko yàlla dëggal ba résultat yi le 23 janvier ci ngoon sëriñ bi waa nga jël mairie bi teg ko suñ loxo donc lii nii moo nekkoon ñu ngi ànd ak nag vraiment suñuy sëriñ euh, muy Cheikh Macky Seck mu Zeyda Assou Sarr mu Mame Baye bi nekk Nigéria. Euh, donc moo nekk nii ak euh, délégation bi ñu àndal ñu ngi ànd ak tamit euh, Baye Bàcci Ñas doomu Zeyda yaa ne ne ñoom ñu ngi ñëw ñu ngi ni toog mais sëriñ bi daal ci gàttal li ñu lay wax gannaaw loolu mbégte boobu mu am ci sa kii bi li tax mu engagé wu ci politique pour laaj mairie Kaolack bi ñett la benn bi njëkk mooy sa bëgg-bëgg boobu muy bëgg-bëgg sëriñam muy dëkk sëriñam ne ñoo ko war a téyel suñ bopp jot na ñaareel ba mu ne ndaw laa xam nga sama sëriñ laa Cheikh Ibrahim dundam gi li ci ëpp daf ko investir ci ndaw ñi investissement boobu dafa war a am jeexital ci dëkkam bi te loolu dama bëgg a symboliser loolu ci élection yi ñu jëm ñetteel ba mu ne damaa jàng ba nekk contrôleur des impôts et domaines nekk au cœur de l'État xam foncier mooy lan euh, donc euh, wàllu suuf ma jang ko mokal ko xam recette municipale lan liñuy laaj ni ma am profil bi mën ci bi ba euh, visionnaire. visionnaire suis un borom gis nouvelle vision non lañ visionnaire. suñ solution suis gannaaw visionnaire. yépp am nañ ko ñun solution un ñu Je ko lan la solution un visionnaire. Medina dina indi gis-gis bo xam Medina Baye à elle seule mom moy defar Kaolack manaka lan la mune ma le dividende religieux ñun suñ falo suñ programme dañ koy mettre au cœur dividende religieux bobu moy lan talibé Baye fi moy capitalu fayda Tijaaniya euh, nga def nañ statistique minimum 300 millions doomu adama aju nañ fi mune ma ñooñu kenn ku bu franc contribution 30 milliards la budget Kaolack actuellement 4 milliards le budget commune kon Medina Baye rek mën na defar Kaolack. Mhm. ci dividende religieux boobu. nit ñi fi nekkoon doon fi jaar ñoo amul gis-gis. Eh, waaw amuñ xalaat loolu moo tax dëkk bi tardé mais levier boobu politiciens yi fi nekkoon ñoom ñoo amuloon gis-gis pour utiliser Medina Baye pour defar Kaolack mais Medina Baye mooy locomotive bi Kaolack war a defaroo gis-gis boobu lañu am ci suñ programme ñu mettre ko au cœur ak yeneen ak yeneen. jotaay bi dafa xat te dafa gàtt mais lii nii mu la ñàkk pour wax la rek ne la li ñuy def nii du làmbatu mais lu ñu toog xalaat ko ba pare nag jël engagement wàcc terrain bi ñu ngi ci ñu ngi dem ci nit ñi. ñu ngi def proximité ñu ngi def li ñu war a def donc lii daal moo nekkoon message bi ñu la doon indil. voilà moom <laughs> bu jëlee kàddu gi dina la wax lim la war a wax. salaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi ñu ngi leen di nii di jiital ci nuyoo bi alxalifa Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass di ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di wax ci kàddu yu gàtt rek ñu ngi ñëw tey ànd ak seen mbokk di Mouhamed Youssouf Bengelloune nekk nit koo xam ne ànd nañoo ak moom ci ak mbokkoo ci yàlla ànd nañoo ak moom ci taalibe ànd nañoo moom tamit ci doomi dëkk bi mu ñëw tey nuy si xalifa bi ziyaare ko en tant que taalibe ci politique lañ àndee moom ak ci di àndoo ci yàlla ànd bi ñu ànd ak moom. yàlla def na keroog bi ñu joxanteeg moom loxo ba léegi lépp loo xam ne waxtaan nañ kook moom defal nañ ko te amul ci benn hésitation bu njëkk bu mujj mooy hôpital poste de santé bii ni nga xam ne dañ faa dem ñu tawatal ñu seen i jafe bi biñ ko ko waxee même pas une semaine ci la réagir defar seen bëgg-bëgg yooyu te am na yeneen yoo xam ne nee na leen bis biñ ko ko falee dina ko defal ñun nag ñooy mouvement bi nga xam ne ñooy jeune espoir de Medina Baye am yaakaar lool bëgg Medina jëm ci kanam Macky mii ci la bokk dinga xam ne moom mooy doomi Seyda Aïssatou Sarr ak ñeneen ñi nga xam ne ànd nañoo moom yëpp ñu ñëw gunge ko tey ci xalifa bi di sàkku mu ñaanal ko dëgg-dëgg wax ji du ko matee moo tax ñu indi yooyu noonu di la seedal na nit ku baax la nit la koo xam ne biñ ànd ak moom ba léegi rëccuwuñ li nga xam ne moom la ñu wax ñu ngi ñaan nga ñaanal ko yàlla li nga xam ne mu ngi la ci tàllal loxo pour jiite municipalité bu Kaolack bi yàlla jotal ko ko ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ci barke Cheikh na Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ci barke baay Baye radiyallahu anhu ñu ngi jégg lu baax ci kàddu yi waaye mënoon naa gën a gudd. sëñ bi mën naa am ndigal alhamdulilah salaamaaleykum sëñ bi maa ngi lay nuyu di leen ñaan nga jël nuyoo bi wasaare ko ci njaboot gi yëpp ak ci mboolum xalif général. mi nga xam ne mu ngi ci Sénégal balaa maa sori rek dama lay jox nuyoo sa waaja muy Seyda Yandéné Thiam mi nga xam ne ne moom ma tarbiyaal bu ma amee 15 ans jox ma wér di ci ma doxal ma sëyru bëggloo ma Baye Niass ma lenn lu dul Baye Niass <laughs> waaw bu ma amee fukki at ak juróom laa dugg ci faydu bi ci buntu seeda ya nene cham mu doxal ma seeru xamé ma xamal ma bañas bëggulomako mom ko moom bu ñuy ñëw fi ni dañ né talibi ndigal ci mom lañ jaar ko yaay ñun ñoo ngi dem séti bañes nak tay yow yaay jëm bañes ci kaw suuf lepp nak loy nit loy def da ngay jaar ci buntu ba ma ko yaay yow yaay suñu ci bañes ñun ñoo ngi dem ci bañes mu ne wa baxna demal so démé nga nuyul mako ko ma jox nuyum jox nuyoo wa daayiram yep di wax ne tey nag ñëw na ànd ak tamit njabotu Baay ñew set ci si du len luddu rek so bëggee ci nak bi ci so nak bi da ngay and ak ci njabotam pour nak ndaxte pour jot ci señ bi dañu ñewun kon and ak njabotu Baay gi nak señ Makki gi mi rek di set ci Baay mo ngi ni yag nañ and liggéey mais ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamne ne ne ñoo ngi ànd ak man ak sama wa mouvement bi yëpp góor yeeg jigen jigéen ñi nag ñu ci biti ñëw pour sàkku ñaan ñëw tamit pour wax la ne la élection yi ñu jëm ñu dañ cee fas yéene samp suñ nënd pour nekk candidat ci élection yi lu tax nag loolu mooy man ay ndaw ak ay jigéen yi nga xam ne ne Kaolack ndàngaan lañ nekk ñoo ne ma yow lañ bëgg nga nekk suñu candidat ci élection yi ndax gis nañ da ngay doxalee ñooñu nag bu ñu ma defee requête boobu noonu duma leen ko bañal naxté dama ko dama sékk ak ñom jamm yàgg leen soxla ñu jóg ñom suñu ma soxla warna jokk waye waaye fekkoon ne tamit ma xalaat ne jotna nak medina baye am ko xam ne moko togal ci mairie bi nax talibé moy defar dekk serignam te talibé lum defar defar defar am lo loo ne suuf ci amul ndomb tank yoy nonu da des dess nak dëkk soo bëgg defar il faut nga am yeen ndomb tank yi comme te nak kaw la ndangan comme te medina bay ci kaw la nek te kaw mo suñ commune bi ko ëmb yu sakku pour jot ci mairie nak nak ñu défar medina bay loolu lañ ci djublu nak ñun dañu bok ci ñuy wax ne sénégal du dem ci kalamuk ndem nekul ne kaw dafa dem ci kalam te pour kaw dem ci kalam il faut medina bay jitu donc seigne bi élection yi jëm dañ ci fassiyene nek candidat pour gën a defar dëkk bi nga xam ne ne mooy dëkk cheikh al islam ndax nag une cité internationale bu mel ni Medina Baye gis nañ ne ci saayir war na am xar-xalam bu bu weesu bii nii yaakaar ne suñ ci jotee ci mairie bi dinañ def ay réalisation yoo xam ne ne Medina bàyyi dina jot place bu bi mu méngool dina bokk suñu programme incha allahu rabbi bés bu ñu jotee mairie bi 1 km autour de, la mosquée inshallah allahu rabbi dinañ ko pavé dinañ fexé niñ ñu drainer dëkk bi ndaxte tata yi ni nga xamné mo ngi ñu koy gis Medina bay nekk lu ñu neex ñu koy gis Kaolack ndangan tamit nekk lu ñu neex waye étudier nañ ko def nañ ci programme inshallah allahu rabbi dinañ fi dellu soir présenter le programme boobu mais lu mu la mëna wax moy gannaaw buñ ma sama mbokk yi tànnee né ne yaa ma ñu doy ci mairie bi ñu ci Medina bay rek lepp luy Kaolack ndangaan dem nañ fa ci quartier quartier bu ci nekk dem nañ waxtaan ñu fa nekk wax nañ seen doléance lan mooy seen bëgg-bëgg ak lan mooy seen priorité lan lañ bëgg ñu réaliser ko ñu dëxañ ko ci document bii nii. lii nag lañuy jël incha allahu sukkandiku gën a pré euh, gën a taxawal suñu programme bi nga xam ne ne moom lañu bëgg a proposer Kaolack waay dafa nekk en cours bés bu noppee. dafa am ay yu ñu ci war a yokk tuuti rek sànq ak boo xam ne moom lañ lay présenté bi ndaa am lu ñu ci mottale bés bu mottee dina ñëw wax la ko nga xool lan lañ ciy wàññ bu boobaa ñu wàññi ko lu luñ ci yokk ñu yokk soo gërëmee tamit ñu doxalee ko noonu en tout cas ginnaaw bu fi ñuy waxee suñu profil bi muy ñu nekk ay ndaw wax taalibe baay bu ñu doon dañu am vision pour Kaolack ndangaan ndax suñu bëgg-bëgg mooy fexe Kaolack mu nekk une ville économiquement performant socialement épanouie donc duñ guddal ndax léegi xadara jot mais daal euh, loolu moo nekkoon euh, tànk yi di la wax nag ne dañoo seetlu tamit ne. Kaolack depuis Valdiodio njaay ba tey ji essayé nañ maire bu nekk mais suñu essayé ndaw ma bëggoon nag nga ñaanu ma ma nekk maire ndaw boobu noonu ci élection yii nii ndax nag mun naa considérer sama bopp ndaw ndax maa ngi doog am ñeent fukki at mais nag nekku suñu mouvement bi nekk ay ndaw rek ci am na ay mag ay sage yoo xam ne ñoo ngi encadré dañuy jàppale ci liggéey pour dalal sa xel ndax danaa doon dégg suñ Cheikh Tidiane si ne ñemewul mbooloo boo xam ne ay xale rek lañ waaye tamit ñemewul mbooloo boo xam ne ay ndaw rek ay mag rek ci nekk donc daal loolu bëgg naa la ko bëggale sëriñ bi di yemale kàddu yi fii nii di wax ne yàlla na yàlla bàyyi la suñ kalam yàlla la yàlla wéral la yàlla na yàlla def Medina bàyyi jàmm def ko ci Kaolack ndàngaan def ko ci senegal yëpp suñ mebet daal mooy Medina bàyyi taaru ba raw ci faas ci taar ak màkk mu mu jërëjëf. bu baax di leen dëkk bi. mu ngi leen di nuyu bu baax leen sargal ci dëkk bi.

dañ ko dañ koo bëggee sentiment rek ne dañ koo bëgg liñ bëgg def dañ ko bëgg a defee xam-xam. liñ a def dañ ko bëgg defee xam-xam. ndax xam-xam mooy taxaw mu dëgër. ndax xam-xam mooy taxaw mu dëgër. su fekkee xam-xam ne ko fa ay yëg rek la ki sentiment du du sottal dara. mooy yi nga wax ne jaar nañ fi ay yëg ay sentiment rek. mooy yi nga wax ne jaar nañ fi. mooy li nga wax ne jaar nañ fi. Euh, ndax jaaree wuñ fii dogu. ndax jaarewuñ fi dogu dañ fay jaare rek seen waaw. dañ fay jaaree rek ñoo waxtaan ba sori suma xalifaa ngi nii suma rakk la. Mm-hmm. mu ne balaa mi sori rakk mi ngi nii. Mahmoud Khalifa mm-hmm. mus na nekk maire Kaolack. mus na nekk maire Kaolack. mun na nekk seen seen conseil. mun na nekk seen conseil. mën na nekk seen waxtaanukaay. mun na nekk seen waxtaanukaay. ëllëg mu ngeen ko boole ci. ëllëg mu ngeen ko boole seen biir. am na am na expérience. parce que jaar na ci. Mm-hmm. parce que jaar na ci. bu loolu paasee dëgg-dëgg. bu loolu paasee dëgg-dëgg. du ma am lu dul kontaan. du am lu kontaan. ñaan yàlla. ñaan yàlla. li ma gis ci toogaay bi lim gis ci toogaay bi ak li ma dégg. ak lim dégg. surtout doomu farox bi. surtout doomu ku ku bi mu am. doomu farox bi éloquence bi mu am. ak. Euh, Saliou ak Saliou yàlla na jëf ji amee éloquence sunu itam. yàlla na jëf ji amee éloquence. gën a gën a gën a mat gën a jotal. yàlla na gën a mat gën a jotal. li ngeen wax nii yëpp. li ngeen wax nii yëpp. moom ngeen doon fekk may wax ak xalifa. moom ngeen doon fekk muy wax ak Cheikh Xalifa. Kaolack amul leader politique bu dëgër. Kaolack amul leader politique bu dëgër. te dañ ko war a am. te dañ ko war a am. ndax manqué wut manqué wut ko ko am loo. ndax manqué wut lu ko am loo. borom expérience yaa ngi fi. borom xam-xam yaa ngi fi. xam yaa ngi fi. doomi famille yaa ngi fi. doomu famille yaa ngi fi dëkk fii ñu xam leen. xam seen kër baay xam seen kër yaay. xam seen kër baay xam seen i maam nekk ay borom xam-xam. xam-xam bi ni muy doxee. xam àddina bi ni muy doxee ñu dugg ci génn ci. ñu dugg ci génn ci. dëgg-dëgg bu ñu sàgganee seen bopp ñoom ñoo sàgganee seen bopp. que ñooñu bu ñu sàgganee seen bopp ñoo sàgganee seen bopp te am nañ loo xam ne nag buñ ci defee kattan biñ ci war a def am nañ loo xam ne duñ ci defee kattan biñ ci war a def am amul dara luy génn seen loxo amul dara luy génn seen loxo d'abord lu ci njëkk d'abord lu ci njëkk nañ am point de départ nañ am point de départ nañ am maanaam nañ am kilifa nañ am kilifa nañ am njiit nañ am njiit ñuy déglu nañ am lu ñuy déglu nañ respecté nañ respecté suñ bopp. suñu bopp suñ doom yeeg. suñ jarbaat yeeg suñ jabar yeeg yëpp. suñ jarbaat yeeg suñ jabar yeeg yëpp. yëg na ñii dañoo jóg pour liggéey loo xam ne dina ma génne fu metti fii ma nekk yóbbu ma fu gën a yomb. yëg na lii ñuy liggéey dina ma génnee fu métti fii yóbbu ma fi gën a yomb. xam naa ne dafa xat waaye bëggoon naa xam. xam ne dafa xat waaye bëggoon na xam. moom seen plan économique lan la ak ci li ngeen ko tabax. seen plan économique lan la ak ci li ngeen ko tabax. man maa ko tabax ci mbay. moom sëriñ bi mi ngi ko tabax ci mbay. dégg ngeen tool baay. dégg ngeen tool baay. ndax uh, yëpp parce que gis nañ ne daal Kaolack mun naa am lu nekk te amu ko. ndax gis ngeen ne Kaolack mun na am lu nekk te amu ko. te am na lu nekk itam waaye bëggu ko. te am na lu nekk nag waaye bëggu ko. ndax dëgg-dëgg taalibe baay mat nañ lu nekk. ndax taalibe baay mat nañ lu fu nekk ci àddina. fu nekk ci àddina bi fii ci Kaolack. ci Kaolack ay borom xam-xam yu mat sëkkang ci. ay borom xam-xam yu mat sëkkang ci. ay professeur université ay professeur université lycée ay ñu jaar ci expérience yu rëy rëy tukki yi. jaar ci vraiment luñ amul rek ñoo ko bëggut quoi. vraiment luñ amul rek ñoo ko bëggut. waaye buñ ko bëggee rek mën nañ ko am. waaye buñ ko bëggee rek mën nañ ko am. ñu ngi ñaan yàlla bu baax a baax. baa ngi ñaan yàlla bu baax a baax. yal na yàlla barkeel seen yëngatu. yal na yàlla barkeel leen fi ngeen bëgg a àgg. yal leen ngeen bëgg àgg. ndax bala ñoo dee. ndax ba ñoo balaa ñuy dee yàlla yéex lool ñu gis ne suñ doom yi de voilà liñ doon gént suñ doom yaa ngi nii ñëw nañ. doon gént yëpp mu gis ko suñ doom yaa ngi nii. ñëw nañ. ñëw nañ te dinañ ko àggale nañ ko bëggee. te dinañ ko àggale nañ ko bëggee. yàlla nañ ko yàlla defal yàlla nañ defal. parce que ku olof Ndiaye nee na ku am dee ku am doom deewoo. olof Ndiaye nee na ku am doom deewoo. te ñun ñëpp ay doomi Kaolack lañ. te ñu ñëpp ay doomi Kaolack lañ. ay mag ñu kawe jaar nañ fi. ay mag ñu kawe jaar nañ fi. <coughs> liggéey nañ fi. liggéey nañ fi. waaye seen liggéey boobu bu ko seen doom sàgganee. waaye seen liggéey boobu bu ko seen doom yi sàgganee. dëgg-dëgg dafa mel ni liggéey. dëgg-dëgg dafa mel ni liggéey. <coughs> Kaolack gii ngeen di wax. Kaolack gii ñuy wax. <coughs> lu nekk war na ko am. lu nekk war na ko am. ndax lan. ndax lan. seet leen gàmm gi bu ñëwee rek ñaata nationalité ngeen fi gis. seet leen bu gàmm gi ñëwee ñaata nationalité ngeen fi gis. te kenn joxuñ kenn billet ne ko ñëwal. joxuñ kenn billet ne ko ñëwal. joxuñ kenn ne ko boo ñëwee dinañ la dalal. joxuñ kenn ne ko boo ñëwee dañ la dalal. ñëwal rek ñëwal rek. ñoom ñoo tànn seen bopp ñëw. ñoom ñoo tànn seen bopp ñëw. am ñoo xam ne soxlawuñ sax dal dañuy ñëw rek lal ci bàyyee bi ba affaire bi jeex rek. ñu ñibbi ñoo xam ne soxlawuñ dañuy ñëw lal ci bàyyee bi rek mu jeex ñu delluwaat parce leen ñu ñëw سين خول مولين انفيتي سين خول مولين انفيتي سين بغ بغ مولين انفيتي سين بغ بغ مولين انفيتي تلول بن السنغال موكو ليغي بلولو ام تلول بن السنغال موكو ليغي بلولو ام مامي السنغال ييب لا مامي السنغال ييب لا دونك لولو يالا مايكو كاولا دونك لولو يالا ماي كاولا كوا وا كاولا كي كيلك فام دا ماي واخني لا كاولا دا نيو نوندي <laughs> quelquefois sëriñ mu ne waa Kaolack dañoo ndondi. waaw parce que parce que xamuñ doole bi ñu am. parce que xamuñu doole bi ñu am. boo demee Nigéria gaana boo demee Nigéria Ghana. da nga fekk ay xale yu jigéen ñu ngi tuddee Kaolack. da nga fekk ay xale yu jigéen ñu ngi tuddee Kaolack. da nga fekk xale yu góor yu ñu tuddee Kaolack. xale yu góor yu ñu tuddee Kaolack. loolu ban dëkk moo ko am. loolu ban dëkk moo ko am. Kaolack rek moo ko am Kaolack nit ku ñu tuddee Kaolack. nit ku ñu tuddee Kaolack. boo demee ci as as boo demee si asi yi. voilà xalifa ngi nii jaar jaar na fa. Cheikh xalifa ngi nii jaar na fa am na ñoo xam ne leen tuddee Kaolack dëkk boo xam ne dañ ko tuddee Kaolack. dëkk boo xam ne dañ ko tuddee Kaolack. Eh, ba ba tsunami tsunami bi amee. ba tsunami mi amee. soo foofa. sa foofa. turu Kaolack boobu répété nañ ko répété nañ ko bu baax a baax. di joxe information turu Kaolack boobu ko répété ko bu baax a baax a baax. maa ngi am yëg-yëg. sëriñ bi mi ngi am yëg-yëg. ñun waa Kaolack bu ma leen mënoon ñu dajale dara yónnee ko waa Kaolack yooya. mu ne ñun waa Kaolack bu ñu mënoon a dajale ñu yóbbu waa Kaolack yooyu. waaye ndongo daara yi kenn du leen déglu. dañ naan indépendance waaye ndongo daara yi kenn du leen ah, ah, déglu jàngul ay ay analphabète lañ. ay analphabète lañ. <laughs> fekk fekk duñu analphabète. Mm. fekk duñu ay analphabète. Eh, ñu jàng lañ. ñu jàng lañ ñu xam lañ. ñu xam lañ ñu mën a liir lañ. ñu a liir lañ. analphabète mooy ku mënta liir. analphabète mooy ku mënta liir. ku mënta liir sa jamono. ku mënta liir sa jamono ak ñu ci war a def. kooku mooy. universitaire. mooy analphabète parce que mënoo liir li nga war a liir. mënoo liir li nga war a liir. te yàlla may nañu mën nañoo liir lu bare bëri. yàlla may nañu mën nañoo liir lu bëree bëri mën nañoo liir téere yi mais mën nañoo liir àddina bi itam. mën nañu liir yi mën nañu liir àddina bi tamit. yàlla na yàlla defal leen loolu. yàlla na yàlla defal leen loolu. yàlla na yàlla dëgëral leen. yàlla ñu ngi ànd ak yow. ñu ngi ànd ak yow Ben yàgg na ci Mérina. alhamdulilah Ben Jelloun yàgg na ci Mérina. Euh, booy daan am bu waaye daan am gan. bu bàyyi doon am gan ñoo ko daan toggal lii. ñoo ko ñoom lay sant nañu toggal ganam yi. ñoo ko daan toggal ganam yi. ah bon. sama maam la voilà sa maam la. maamam la mu ne maamam la. <laughs> yéen ak yéen ak yéen sa bon sa kër nga ñëw. kon nag sa kër nga ñëw. Ah, foo war a foo war taxaw fa nga taxaw. foo war a taxaw foofu nga taxaw. bon ñu ngi ànd ak yow. kon sëñ baa ngi ak yow. ñu ngi lay di ñaanal yàlla. ñu ngi yàlla. ci seen taxawaay. ci seen taxawaay. yal na yàlla yëkkati leen. yal na yàlla yëkkati leen. yal na yàlla dimbale leen. yal na yàlla dimbale leen. bi ñuy wax sànq sànq Cheikh Madi a ngi nii bi la moom tamit nit ku. nit ku nit ku nit ku jar la aussi moom nit ku jar a déglu la. si surtout si lii ngeen di liggéey. surtout si lii ngeen di liggéey. ñu ngi leen ci ñu ngi leen ci ñaanal yàlla bu baax a baax. sëriñ a ngoonu ajjuma ji. si nit ñu tedd ñi. pare pour jihaat. pare pour jiyaat ci dal dëkk bi <laughs> maa ngi wax góorgóorlu mu ngi wax góorgóorlu pour defar seen réew góorgóorlu pour defar seen réew góorgóorlu pour defar seen dëkk góorgóorlu pour defar seen dëkk dëgg dëgg loolu yaakaar mënta passé foofu dëgg dëgg loolu yaakaar mënta passé yàlla na ko yàlla dëggal yàlla na ko yàlla dëggal yàlla nañ leen gis dëgg dëgg yàlla nañ gis dëgg dëgg ngeen xam di merloo doomu doomu Faroox bi. mu mm-hmm. ne ngeen gis lu merloo doomu Faroox bi. wax na yoo xam ne xam naa xamu ko sax wante. wax na yoo xam ne xam ne xamu ko sax. <laughs> Ah? nekkoon Kaolack. waaye ñi nekkoon Kaolack avant avant décolonisation. xam na Kaolack meloon. xam na Kaolack meloon. dañ ko dundoon. dañ ko dundoon. ak ñi xam Kaolack gi tey. xam Kaolack gi tey. boo amee xol da ngay jooy rek. boo amee rek. parce que. voilà yaa ngi nii di perte sa réew te si dara. mu ngi noonu rek yaa ngi nii di perte sa dëkk te si dara. yaa bon nag bu ngeen jógaatee pour loolu. bon nag bu ngeen jógaatee pour loolu. ñu ngi ñu ngi bég. ñu ngi bég ñu ngi kontaan. ñu ngi kontaan. te toujours damay wax ne. te toujours sëriñ bi day wax ne xale yi yéen a war a góorgóorlu parce que yàlla xale lay may. xale yi yéen a war a góorgóorlu ndax yàlla xale lay may. te xale lay feeñalee. xale lay feeñalee. ay mayam ay mayam. mag ñi mayatu leen dara. mag yi mayatu may naa leen jeex na c'est fini yéen toog leen xaar. ak xale yi ñëw nag. waaye xale yi ñëw nag. foofu lay feeñalee mayam foofu lay feeñalee mayam. yaakaar mu feeñal mayam ci yéen. sëriñ baa ngi yaakaar mu feeñal mayam ci yéen. ba ngeen gis kawlax bu bees bi ngeen bëgg a gis. ñu gis ko yéen tamit bu bees bi ñu bëgg a gis. ñu gis ko tamit. ñu gis ko tamit. Euh, vraiment euh, Kaolack Kaolack amoon na amoon na ay ay place yoo xam ne si jamono yooyu boori pont ba boo demee ñu ngi fay installé ay kafe ne nit ñi daan dem di ah ñoom El Hadj boobu ñu ngi nekk ay jeunes. bu ngoonee ñu dem foofu ca café ba toog fa ci boori gi ah, anamu ah daana am ay café comme ni ko daan ni nga koy gisee Paris café yooyu ànd ak seen tante yi ci mm. buntu ci ah amoon na fi. Mm. amoon na amoo ah, boo demee tey tey jii maa ngi dem port ah, ba ay magasin mhm. magasin yu rëy rëy mhm. te tubaab yi ñoo ko fi defoon magasin yooyu tubaab def ko fi pour caaxaan parce que xam na ne fii magasin yi dina fees ah ñu tabax ko fi waaye waaye fi mu nekk ah <laughs> amin ya rabbi amin ya rabbi amin ya rabbi macha allah xalifa saahibul faydatu tijaaniya yëkkati na jotaay wi ngan gi Ahmed Youssouf Ben Zulum seet si woon Cheikh Mahamadul Mahi Ibrahima Niass ànd ko délégation bu am doole ngir ñëw wane ko candidature am bi mu déposé pour nekk mairie Kaolack li leen xalifa bi doon sàkku di ko bëgg si taalibe baay yëpp Ahmed Youssouf Ben Zulum dëggal boppam ji ngir ñëw rek wan xalifa bi ne dëggal na boppam ngir nekk mairie Kaolack sàkku si moom ndigal xalifa bi digal ko gannaaw bu mu ko digalee sant ko président Ahmed Youssouf Ben Zulum bi mu génnee mbégte ak contentement moom la am ba yëkkati yële kàddu xanaa di mu nekk ay kàddu mbégte ay kàddu sant yàlla ndax euh, tey xalifa bi dañu defal honneur ak amabilité bu rëy recevoir ñu ci bés bu sell bi muy ajjuma te ku xam xalifa bi xam ne ne calendrier dafa chargé waaye malgré tout jël nañu xajal ñu ci ci bés ajjuma bi ak taalibe cheikh ku ko xam ak ajjuma ak waxtu bii ni mu jël xajal ñu ci mu nekk nag symbole bu ñun ci ci ñun symbole bu rëy lu naturellement bu ñëwee dañ ko tàllal loxo mu ñaanal ñu ñaanal ñu suñu yëngatu yeeg suñu dal yi ñuy nekk di def yëpp ci wàllum politique ak ci wàllu wàllum citoyenneté ñu ni tamit eggale nañ ko suñu mbébét mbébét bi mooy lan dañoo fas yéene ci élection yi ñu jëm incha allahu rabbi en 2022 présenté wu ci nekk ci candidat pour la mairie de Kaolack biñ ñëwee wax nañ ko ko wax nañ ko lu tax ñun nangu nekk candidat wax nañ ko programme bu ñu am incha allah bu ñu bëgg a dérouler pour suñu yàlla tegee ci mairie Kaolack bi ndax nag jàpp nañ ne mairie bi Kaolack suñ ko tegee ci loxo yuñ ko war a teg te ñu yaakaar ne loxo yooyu ñun la incha allahu bi dinañ fexe ba Kaolack nanga nekk une ville économiquement performante socialement épanouie loolu moo ñu tax a jóg loolu lañ ko wax buñ ko waxee na mu mu kontaan ci loolu. xamal ka nag ku ne ko njëkk nañ nekk taalibe Baay yi nga xam ne ne ñoo njëkk a versé parce que keroog moom dafa dajale kër gan ñëpp xam nañ ko mhm. ne pourquoi taalibe Baay ñoom du njootu jot jël mairie bi ñun nag nee nañ ko loolu ñoo ngi ci woon bu yàgg te ñun confirmé nañ loolu ndax suñu candidature déposé nañ suñ caution mhm. kon incha allahu rabbi élection yi ñu jëm su benn Bengelloune ak coalition bi nga xam ne moo ko jiite fii ci Kaolack nangaan dañ ciy doon ay dañ ciy doon candidat moom ñaanal nañu ci dañu ñaanal nañu ndam wax deug yalla conseil nañu tamit Nouvelle Vision Quelle mouvement la coalition. Nouvelle Vision mouvement mais nous ngi coalition avec alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes man ne sais pas loolu lañ tuddé suñu coalition bi ma leen ko yeen ma primeur bi rabbi Nouvelle Vision Nous dem ci élection locale ci bannière coalition bu ñu avec kat yi manam avec mo ngi signifier alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes ñu dëgg ñu dëgmant euh, yok ci liguey kat yi la coalition bi tudd Inshallah, allahu rabbi balaa yàgg rek dinañ na wote ndaje bo xamné journalistes yi ñu gën ci échange incha allahu rabbi ci wàllum ci wàllu boobu noonu mais daal foofu laa mën a yem pour l'instant jërëjëf kon mbokku téléspectateurs yi lii la ñu àndiloon fii ci kër xalifa saahibul faydatu tijaaniya cheikh mahamadul maahi ibrahima Niass yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér mbégte ak contentement gu mat sëkk la dalalee président Ahmed Youssouf Bengelloune kon lii mooy taxawaay bi nga xamante ne waxtu wu nekk rek convention média de la fayda mu ngi koy amal si adratu maanaam cheikh l'islam aj ibrahima Niass Baye ñu ngi joxante ak yéen si yeneen jotaay yu mel nii wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëgën jëf ak Innovation Média de la Faïda. URAS Info, Ribari Gao. Tchewor, URAS Info, l'info à temps réel. URAS Info. Djangadjou Khod, Tedegou, notre force, le traitement de l'info.